d'abord damay sargal sunu mbokk médecin yi ak euh, sunu mbokk homme de tenue yi parce que médecin yi aussi def nañ liggéey bu am solo euh, ñafe nañ ba ba tey ñu ngi si hôpitaux yi di xeex di jël malade yi di leen faj ba daanaka fi mu ne nii euh, ñi nga xam ne ñoo tëdd si lal yi ñi wér doublé nañ leen kon loolu effort la ñu ngi leen di sargal fépp fu këru docteur nitu këru docteur nekk rek ñi ngi lay sargal di sargal homme de tenue yi nga xam ne ñoom dëkk bi am na sécurité ñoo doon surveiller couvre bi ak di ñaax sunu mbokku njaañee ni ñu respecter les mesures barrières aussi di sant Sénégal ñëpp. ne Covid bi am na aussi ay ay ay ay ay mbir yu yu yi indi loolu sunu borom moo ko dogal mais gis nañ edd bi ni mu joxe jàppale pour jàppale nit yi yër waaw mais xam nga séddale bi man jéem a dugg parce que. dus ñun ñun ñun ñun ñu ñuy def politique kenn ku ne fa nga man ak ñi nga xam ne defuñu politique les hommes d'affaires euh, imam yi ku ne chauffeur yi ku ne di jàppale man bër ki démb laa jóge Daaru Musi yóbbu woon fa cinq millions yoo xam ne un homme d'affaires qui s'appelait Mohamed Nazir Sam moo ko joxe si turu président Macky Sall jàppale ko les chauffeurs de Darou Moussi regroupement des chauffeurs de Darou Moussi keroog bi ma demee dama ko jox préfet mu jox leen ko ñu ndimbaloo ko pour euh, si si mbas mi le temps que le ministère des transports Euh, ndimbal bi nga xam ne moom état bi joxe na ko pour ñu jox leen ko. Sénégal dafa nekk réewum social réewum teraanga ñoo ngi doon dimbale ti suñu biir mbas mi nag yàllaa ko indi yàlla na ko yàlla jeexal ci jàmm. danaa la dóor te yoraguma yat bi moom man duma ma si wax waaw loolu littoral bi euh, li ñi si war a wax am na ay nit ñoo xam ne loolu lañ jàng ay ay environnementiste lañ ay moom lañ jàng ñenn ñi ay technicien lañ loolu mën nañ ci wax mais man. wax dëgg yàlla si Georgia laa jóge xaw ma lan mooy littoral man gis gis naa ko comme ni ko nit ñi mais nekkul loo xam ne wax dëgg yàlla maîtriser naa ko kon bëgguma si wax daal. kooku nag la mu wax moom moom laa engagé daal mais littoral bi euh, bu ñu bu ñu fàtte ne lii du président Macky Sall moo ko moo ko def am na ñu beneen régime bu fi nekkoon def ko léegi nag buñ jël bëggoo def coow scandale amul foofu jàppa de scandale scandale amul bu nekkee ne da nga nekk si mbir. ñu jox la dàqu jàng ñi si nekkoon am na ñoo xam ne bi ñuy xeex xeex bi fekkewuñ ko mais président jàpp ne parce que président c'est le chef mu jàpp ni ñii war nañ mën a jariñ dëkk bi mën a jariñ mu jël leen parce que ñun ay républicain lañ ñu nangu loolu kon su nekkee ne président defal na leen boobu teraanga man jàpp naa ne am na yoo xam ne ñoom war nañ ko rus a def man jàpp naa ne nit ki boo demee ba nekk si dara am si teraanga te amatoo si engagement man de su ma nekkee ni parti bii nga xam ne moom laa bokk alliance plat bi amatuma si engagement damay taxaw jénn si am na ñu ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla amuñu engagement mais nag ñun sañu ñoo wax parce que sunu chef moom moo leen choisir sunu chef nag li tax mu choisir leen moo moo xam parce que moom la sénégalais yi fal loolu nag ñun ay républicain lañ lool la ñu président Macky Sall yare lépp lu mu def dogal rek ñun dañ ciy d'accord parce que moom c'est chef xam nga nag président Macky Sall moo choisir équipe am man républicain la président bi koy choisir consulté wu ma dama jékki-jékki gis mu taxawul gouvernement choisir ay nitam xool ni jàpp ne équipe bii moo war a doxal yëf yi parce que aussi moom it am na plan muy plan Sénégal émergent du horizon deux mille trente cinq évaluation moom moo koy def parce que moom mooy le chef man remaniement wala dara man aw ma sañ-sañ boobu aw ma euh, aw boobu sañ-sañ. ne remaniement dafa war am suba wala dafa war am gannaaw suba man républicain la loolu la ma président Macky Sall jàngal citoyen la lépp lu chef bi décidé dama koy respecté. ñagas moom amu fi politique moo am kenn ku ne day politique sa façon bi ngay politiquer Mamour il fait la politique de développement mi ngi jàppale femmes yi gis nga bi programme euh, bi mbas mi ñëwee dem na joxe cinquante tonnes ceeb ak euh, ay tonnes suukar yu bari jàppale kilifa diine ya jàppale daara yi jàppale ay militants joxe fa ay masque dem jox gouverneur bi nga xam ne moo fa toogal chef de l'État kon Mamour il fait le politique de développement gis ngeen euh, jamono yee presque formé woon na ay nit ñoo xam ne dañuy jëlaat euh, dañuy jël charbon bi di ko di ko plastique bi di ko di ko recycler yooyu yëpp moom Mamour il est de faire la politique de développement. politique yi ñoo wutee rek mais amul amul ñagas ñagas bu am parce que Mamour dafa considérer Moustapha rakkam te jàpp naa ne Moustapha considéré na Mamour euh, Mamour magam. may profité si loolu di wax ne ñi nga xam ne ñi ngi si biir gouvernement bi te président Macky Sall jox leen gënuñoo sonn kenn kenn si campagne bi mais président moo leen choisir nekk chef ma leen wax ñu roy si Mamour Diallo parce que Mamour Diallo président de ko jël dindi ko si poste bi mu nekk mais teewul man mi nekk ak moom gis naa ne tey la gën a am engagement pour accompagner président de la république Macky Sall mi koy accompagner si lépp lu mu digle rek bi mu diglee ne nañu jàppalante suñu biir si mbas mi Mamour respecté na ko dem def na bi mu ne na ñëpp arrêté activité politique yi ak activité sociaux yi arrêté na ay activité politique am kon liñ njëkkoon di bi président de la république Macky Sall mi ngi koy respecté te tey la gën a am engagement kon ñi nga xam ne far Farba wax na loolu dama koy gën a waxaat ne am na ñoo xam ñooñu dañu war a roy si ñi nga xam ne président joxu leen te teewul ñi ngi am engagement ba tey te lu ne daj nañ ko si yëf mais dañu xam ne nit ki kenn kon nit ñi mënuñu nekk fépp te président moom lañ fal c'est le chef lu mu décidé lu ne neex na parce que Mamour nag c'est un haut fonctionnaire xam na lan mooy état. xam nga lu lu ñëpp àdduna bépp marché di ko xeex ñu tëj aéroport yi dem beeg dikk bi ñu tëjoon ko su ñëwaatee du doon jàmm si ñun xeex bi demoon nañ ba xeex bi daanaka yegg na si pour ñu gañe ko. may gën ñaax nit ñi ñu gën a respecter les mesures barrières mooy parce que këru këru yi li ñu digal suñ ko defee rek danañ ci mucc mooy di takk masque yi di laal gel yi di raxasu te ñu respecté xam ne mbas mi ba tey mi ngi fi parce que Covid 19 lu existé la waaw kon loolu laa am lu may wax si sénégalais yi wax ne yëf yi lu existé la may wax sénégalais yi. ak mbokku mbokku Sénégal ñu respecté. justice su Sénégal parce que justice bi dañu am ay magistrat yu ak ay juges yu am solo yoo xam ne dañu jàng def seen formation xeex ba yegg si fii ñiy rampe lu la ñu daj ko seen adduna ba ñëw di service seen dëkk man jàpp naa ne war nañ leen respecter parce que Sénégal réewum démocratie la parce que président bi mu ñëwee fekk na justice bi si ay anam yu am solo yu yu doy waar mu indi ko ci ay anam yu am solo ñëpp gis nañ développement bi mu def ci wàllum justice Sénégal mu jox na les magistrats autonomie justice bi séparation des pouvoirs la gis ngeen gis ngeen ku nekk ci nguur geeg ak ku bañ a nekk ci nguur ku deful lu dul yoon yoon day daal sa kaw may wax ne ministre de la justice bu fi nekk man de xawma ko mais gis naa ne mi ngi def liggéey bu am solo gis naa ne xale yi doon taxawal si mbedd mi jël na leen yóbbu leen seen ay centre de formation dans les régions xale yi di def ay résultat gis naa yéen Dakar Actu Dakar Actu ngeen vidéo ko kon jàpp naa ne loolu résultat la aussi kaso bi nga xam ne moo nekk si bu xotaan euh, jafe-jafe yi nga xam ne suñ mbokk yi nekkoon rëbës ndax feesaay bi ak kaso yi nekk ndakaaru jël na ay nit fexe ba foofu sotti muy jël nit ñi di leen transférer di leen yóbbu foofu gis nañ ñu dossiers yu bari da daan tardé mais gis nañ ñu tribunaux yi ñu gaa yaa ngi jugé nit ñi kon gis naa ne mi ngi def ay act man xam naa ko ni mais musuñ musuñu gisee musuñu wax mais damay seede te yàlla tax aussi may profité waale si loolu gi wax ne famille Farès ay sénégalais lañ fii lañ nekk si dëkk bi lañ dëkk depuis quatre vingt ans ñi ngi fi yor seeni i industrie di fi investir ñii fi leen juddoo ñii seeni doom fi leen juddoo ñu nekk si réew mi ay sénégalais lañ.